lan ñu askan wi day ñu bari feebar nañu waaye nag sunu jumtukaay yi nga xam ne maanaam moo nekk ci bërëbu fajukaay yi ñoom ñoo gën a feebar sax ñi nga xam ne ñoo fay dem te bu ñu waxantee dëgg sunu nguur yi ci boppam ñoo xamul priorité lu jëm ci wàllum faju gi ba léegi nii maanaam lijjanteeguñ guñ ko journal bii di laas ñu fekk fa docteur Amadou Ba moom nag la mu xamle nee na faju ci Sénégal maanaam jafe na loola te nag système bi si boppam moo baaxul te buñ ci bëggee nag andi saafara système bi dañu koy daal di soppi te sax maanaam dañuy ne dafay jëm ca kanam waaye mbir mi des na réew moo xamante ni hôpital niveau 4 sax amagu fi ñu daal di bàyyi mbir moomee wax ci yéen a kaay gii di direct news moom nag daal dinay ñëw ci noppi gi nga xamante ni moom la Idrissa Seck noppi ak Malick Gakou ak Pape Diop ak Issa Sall ak Hadjibou Soumaré journal bi nag nee na noppi gi daal maanaam jaaxal na sénégalais yu bare bare bari journal bi daal di nag wax ne Ousmane Sonko njiitul Pastef daal la ñu gis ne moom jamono ji maanaam ab résistant la Ousmane Sonko bàyyi waaye nag ñi nga xamante ni ñoo si des daal ñoom dañu ne pat pataaral Idrissa Seck mi nga xamante ni sax moom la ñuy tuumaal ne moom ak Macky Sall dañuy dil dañuy négocier loole nag Moustapha Diakhaté mi nga xam ne ay jamono mu jiite woon groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar daal dinay xëy ci yéenekaay gi nee na nag Idrissa Seck ci boppam ak ki nga xam ne mooy Macky Sall ci tuuma yi ñu gàll ci sunu ndodd ne dañuy dil ci ndodd askan bi dañu see war a indi nag ay leeral te dil boobee nag su dee am na loolee tooxi doon a dëggantaan dialogue national bi bu boobaa nag maanaam dil moo ko tax a jóg ak tuur askan bi lëndëm yéen a kaay gii di réew mi quotidien ñu fekk fa waa réew mi bu Idrissa Seck ñoom nag daad na dinañuy dal ci kaw Cheikh Yirim Seck nee ñu li mu wax daal du dëgg dara amu ci ay kàcc la Cheikh Yirim sekk dafa bëgg yàq deru Idrissa Seck waaye nag naka daa di tay ba tey ci biir journal bi mu ñu xamal lan ñu ñoom waa réew mi daal nee nañu Idrissa Seck du moosa négocier ak ki nga xam ne maanaam mooy Macky Sall journal bii de mi di président Macky Sall maanaam bëgg na Sénégal sedd waaye awagul sax sa yoon wa ndax nag première édition bi askan wi dañu ko daal di gedd bu ñu sukkandikoo ci Mohamed Dia Mohamed Dia mi nga xam ne consultant bancaire la la mu xam ne nag nee na daal maanaam set setal bala muy am askan wi nag maanaam dañoo lekk ba suura faju ba wér ndax réew la moo xamante ni askan wi ñu ëpp sa ñooma maanaam jamono ji dañoo sonn sonn sonn ba maara day taal nit ki nag mënut a ba pare ñàkkug wér gi yaram maanaam ñu naan ko ñëwal set setal milliards yi nga xamante ni milliards askan wi la te nag suñu gouvernement yi jël ko di ko saax-saaxe yàq googu maanaam moom manoon a ñàkk te nag gouvernement bi dafay mel ni jafe-jafe yi nga xamante ni moom la askan wi nekkee dafa mel ni gouvernement bi ñoom xamuñu ko suba ngoon guddeeg ba cag ñoo ngi gundaandaat te nag nañu waxante dëgg économie réewum Sénégal jamono ji maanaam si ay jafe-jafe yu méttee métti ci la nekka yéen a kaay gii di Vox Populi ñu fekk fa jibi jaxate moom sociologue bi la mu xamle nee na lu jëm ci wàllum set setal bi li tax mu lajji maanaam maanaam askan wi dañu leen see woowulu waxtaanuñu si ak ñoom te boole wuñu leen ci xalaat bi ba tey ci biir yéenekaay gii di Sud Quotidien mu daal ñuy dikkal ci collectif ñoo lànk ñoo bañ ba tëdd sa naaj wa maanaam mooy ñi nga xamante daal ñooy xeex lépp loo xamante ni jëm na ci yokk courant gi ñoom nag daal nee nañu fukki fan ci weeru janvier bi ñu dëgmal Macky Sall nag maanaam dina way mbay ñoom sax ni ki démb demoon nañ seeti front de résistance nationale ngir nag ñu daal di ñëw dugal seen loxo ci xeex bi nationale ñoom jamono ji pare nañ nag ngir nag gunge leen ci xeex bi en tout cas collectif ñoo lànk ñoo ngi waaj loo xamante ni daal boo moytuwulee bu sottee nguur gi dina daal di deltu ginnaaw front de résistance nationale ci biir yéen kaay gi ñoom nag nee nañu 2024 daal ñoom dinañu xeex bala ñu sa yegg Khalifa Sall Karim Wade mën a bokk ci élection yi yéen kaay gi de la turbine mu ñu xam lan ñu en tout cas li am ba am na loo xam ne ñoo ngi koy laam-laamee waaye bis bu amee ci réew mi maanaam Macky Sall dina jommi ndax nag Khalifa Sall ak Ousmane Sonko mii nga xam ne ñoo ngi ruumandaat ne ñoom daal dañoo bëgg a lëngoo ci élection 2024 yi te balay booba élection locale mën na fee jaar te ñaar ñi bu ñu àndee moom maanaam mën na ñoo gagné ku nekk ci réew mi yéen a kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xam lan ñu Ousseynou Diop mi nga xam ne moom lañ tuumaloon ne moo rayoon ab taximaan joxar bi ko dóor ko balu fetal mu sedd guyu ci station sel bi nekk ci yoon Yoff yi tey ji nag la ñu koy daal di atte loole nag 2016 la xewoon na ba tey ci biir mu ñu xamalaan ñu Fatoumata Makhtar Ndiaye mi nga xamante ni tamit dañu ko rendi woon te mu nekkoon conseil économique social environnemental moom nag Samba Sow mi nga xam ne moom la ñuy tuumaal ne moo def googu la ñaawte fa tey ji moom tim danañu ko daal di atte journal bi du source am mu ñu xamalaan ñu Samba Sow moomee nag maanaam bu sulle ay mbóot bu sulle ay mbóota wax nag la nga xamante ni moo ca xew boo mooy tuule na tremblement de terre ci boppam mooy am ci réew mi ba tey journal bi di Stades mu ñu xamalaan ñu waa douzième gaynde jamono ji ñoom ñoo Égypte di waajal li nga xam ne mooy ballon d'or bi nga xam ne ñu bare bare njort nañ ne Sadio Mané la ñu koy daal di jox El Hadji Ousseynou Diouf na loola nag dafa daal di leer même journaliste yi nga xam ne sax ñoo dëkk ci réewum Égypte ñoom jamono ci ñoo ngi bind ne balon d'or bi Sadio Mané daat na koy jege loola